beneen numéro euh, xam ngeen ne nag comme tous les mardis dañuy waxtaan ak Oumy euh, moom moo fi nekkal handicapé yi te day dem ci ñoom ci seen ay activités yu am solo yi ñuy amal macha allah ndax ñoom nee naa leen euh, ñu ci bëri ci ñoom tàllal loxo moom dañu ko bañ liggéey la ñu def seen activité te loolu dafa nekk lu am solo waane comme tous les mardis aussi code dafay teew ci plateau bi ñu waxtaanee agriculture cosaan ak aada parce que moom mooy base bi moo tax moom ci kanam tuuti dina ñëw ci waxtaan bu am solo solo tey nag mu dem ci loo xamante ne nii lu am solo la muy wàllu immigration parce que gis ngeen ne que ne euh, fi réew mi toll ndaw ñu bëri ñi ngi dem ci bitim réew mais voies yi ñu koy jaaree doon loo xamante ne nii macha allah euh, doy na doy waax goo xam ne faawu ñu waxtaanee ko moo tax ki nga xam ne moom moo di Serigne Mansour Niang moom écrivain la euh, bind na ci bataaxal yu am solo muy téere boo xamante ne nii ma nga cay wax ay wax yoo xamante ne nii ku ko liiree di nga xam ne solo su mag moo ci nekk ak Amadou julli moom dafa demoon dellu si waat ndax li tax loolu lépp dinañ ko ko laaj ci kanam waaye damay nuyu koddu am te dalal ko ci plateau bi euh, tey mu def na mu daan def moom bu ma jàkkaarloo ak moom rek sama xol day sedd ndax moom daal culture yëpp lay laal mhm, loolu la. <laughs> am maman naka def. maa yaa ci jaamu. sant alhamdulilah yaa dem ba Arabie Saoudite. waaw waaw dem ba Arabie Saoudite. comme c'est tukki la wax. waaw ñu voyager rek. <laughs> am na solo teeru suñu ñaari invité yu ñaawul waa waaw di leen wax leen dal leen ak jàmm. waaw mënta ñàkk mi ngi noonu Mansour ma nuyu la am mbégte recevoir la ci plateau bi mbaa yaa ci jàmm. maa si jàmm maa la gën a kontaan ñëw fii parce que tamit xam na li ñu war a wax moo gën a ëpp solo sax toogaay bi macha allah téere bu am solo bi yow yaa ko def muy mémoire de clandestin gis ngeen ne que ne euh, téere bu am solo la boo xamante ne bu ngeen ko liiree di ngeen ci gis njëriñ lu bari waaye nag daañu ci waxtaan nag moom euh, ci kanam Amadou Ly ma am mbégte recevoir la nga dem woon ba États-Unis fi xale yi dem bëgg a dem yow nga dem ñibbisiwaat loolu am na solo loolu waaye dama lay nuyu ba pare. jërëjëf jërëjëf <laughs> merci si invitation bi. Mhm. Ram Sène jërëjëf merci si invitation bi kontaan naa pour euh, waxtaan ak sénégalais sama mhm. expérience. macha allah euh, mais Amadou nit yi ñëpp bëgg a dem yow nga dem ñëwaat dafa mel ni kon li ñuy wax neexaay bi foofu ay wax rek la de ndax yow moom da dem dellu si. bi am na waaye Sénégal moo dàq. moo dàq de yow ah. waxtaan bi dina neex parce que li ma bëgg a dégg nii moom nga may wax xam naa ne kon damay ànd ak waa régie euh, sans plus tarder dem xool li nga xam ne moom moo di ummi seen ndax wax naa leen ko moom daf fee nekkal handicapé yi ci seen jàmbaax ci seen góorgóorlu ak ci seen dugal seen loxo ci pat bi ndax ñoom ci la ñu bokk macha allah ñu dem seetaan ko dellu si waat ummi nuyu naa la maa yaa ngi ci jàmm asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan fii ci réew mi ak si bitim réew ñi ziar kilifa diina yi ak kilifaa day yi ñëwaat nag si jéeg a këram indi leen seen rubrique gëm dogal takku liggéey maman Dieng maa lay nuyu bu baax macha allah yaag ñi nga xam ne yéen a ngi bokk plateau bi mm-hmm. maa ngi lay nuyu. Ah, tey nag maman dama ñëw ba fii Gorée ah, ànd ak sama équipe nag ñëw fa yéene seet si ki nga xam ne mooy Khadim Pouye ah, nekk handicapé waaye nekk nag macha allah koo xam dafa gëm boppam si li muy liggéey li muy liggéey nag mi ngi def notation. Euh, feey euh, boolewaat ci nag euh, commerce kon nag maman ma ànd ak sama nag fas yéenee xool nag ci li muy yëngu. maa ngi leen di leen nuyu leen jox seen wàccuwaay. tey ñu ngi ñëw fii Gorée fekk la fii Gorée euh, avant ñuy ñëw si commerce ba dama a Xaadim wax ma tuuti ci jaar jaaram xam naa mënoo wax la mais nga tënk ko rek ndax Xaadim jàng na école ak euh, ban classe jàng na école jàngu école parce que maanaam li may jàng bariwul école 22 laa jàngee après fi laa mesure fi laa ñëw Gorée fi laa yoroo fi laa màggee. fekk waaw je suis né avec mon handicap dama judduwaale handicap bi. handicap bi dabul rek nga judduwaale benn tànk nga judduwaale. waaw dama ko judduwaale malformation après si lañ ko defaral ni xam nga pour dagg ko pour saabu amputé ko nii pour bu may sol protège mu bañ a metti léegi ñu ñëw tamit ci commerce bi da nga boole euh, notation bi ak commerce bi. waaw moom laay boole ñoom ñaar xam nga ñun fii Sénégal yaa ma gën a comprendre comme ak way laago yi nii man si lii laa yëngu mooy damay jaay nii xam nga su ma paree ngoon damay war a dem entraînement. wala souvent ma matin bi tamit euh, damay dem entraîné ji defi renforcement musculaire après doog a ñëw jaay si. mais commerce bi ba yaa ciy gis sa bopp ndax mi ngi jar ak waaw maa ngi si sant yàlla. ndegam ma si kenn di ko wax sama soxla wala di ko ñaan. néew ko bari samay waa kër ak yooyu ñoom it comprendre nañ ma si. tamit maa ngi siy sant yàlla bu baax. ndax xaar am na soxna. déedéet amul soxna. lu am lu wax ale amul kii ah lu xaar ah waaw bu koy sunu borom dogalee rek waaw. mais yow judd ne actuellement nii juddoo ko rek fii rek. foo juddoo. man Dakar laa juddoo man yàllaa ma boole nattoo ndox mi rek mais samay ñaari waajur yëpp kenn xamu si ndox. ki kajoor doo lébu. du ma lébu sama yaay kajoor kajoor sama papa Saalum Saalum la. léegi njaay mi nag ban année nga ci dugg. waa njaay mi presque maa ngi si dugg ay deux mil deux mil deux deux un yii nag moom wax daal defaruma ko dama koy jënd jaat ko commandé ko yi si ëpp mooy bracelet yi laay defar. waaw ak porte clé yi. ak euh, marakaas yi jógee Casamance dinañu ko dañ ko daan indil mu daan ànd ak sagar mais léegi daaw ànd da doo ànd sagar mais ñoo siy defar ñoo siy def perle defar si bu pour mu gën a am porte si ëpp maa koy defar yi ëpp yenn wàll tam dama koy jëndaat waaw. xaadim de dañuy ñëw fi gore fekk ko fi muy muy dóor dóor waar comme ni gars yi di waxee mu nekk jàmbaaru kuli fadrin vraiment malgré handicap am gis ngeen li muy liggéey ni mu ni mu naayese voilà moo tax ñu ne dañ si dañ jënd vraiment bu ñu demee dëkk ba ñu won leen ne gis na gars yi nekk fii euh, yore handicap teew leen ñuy liggéey daan seen doole ba ba ñu dépendre ci kenn. rafet na am na qualité te tamit euh, am na esthétique boo xoolee bracelet yi yaakaar naa mu ngi ni waa jël na ko. Euh, ak ak ak muy ñu ko tafini si frigo yeeg yooyu euh, vraiment am na qualité te am te rafet na yi tamit vraiment. Xaadim Mboy yal na ko yàlla jàppale defal ko cat te i tamit euh, may ko li muy wut fii dama dema dem ba tabax si ay ay ay këri këri këri dem ci maka yi tamit yor si njabootam correctement xam naa sax yor na si njabootam correctement waaye vraiment moom weesu njortam daal moom li mu xalaat ne looloo tax looloo ko tax a jóg. ñu ngi ñaan yàlla mu dem ba weesu njortam boobu noonu mu jàppale si doomu adama woon exemple exemple la xaadim exemple la il faut nga woon ko gars yi nga waroon ma ko sama gars yi c'est un exemple de réussite sa modèle de la dans la société jàmbaar dëgg la maa ngi remercier samay rak nga xam ne ñoom laa fi deseel ndax sama waajur nekkatu bi man ak samay rak ñoo nekk te de kenn ki mu ngi tudd jeeg moo di jaay ndekki foofu jeeg booy ak awa ak Adama mooy Adama ak awa seex ñooy maa ngi leen ak ñëpp ak waa Gore ñu si bëri maa ngi leen nuyu di leen siyaar vraiment gis nga tey li nga xam moom laa jëloo may gërëm la équipe bi nga xam ñoom laa àndal tey ji mi njaga macha allah njaga laa àndal ak ki nga xam ne mooy Thiat Diop ñoo jàpp si liggéey bi boo yaakaar ne affaire yi gën a ma euh, mama am leen jot di dégg nag beneen mardi seen rubrique gëm dogal takku liggéey macha allah gis ngeen élément bu am solo bi nga xamante ne nii Oumy Sène dafay déplacé wu di dem partout ngir jël euh, sénégalais yi nga xamante ne nii malgré am nañu ay handicap mais ñi ngi góorgóorlu seen kéemtalaay kàttan euh, di liggéey di ñafee di daan seen doole am seen ay activité gëm seen bopp lool macha allah ta loolu euh, dafay doon lu neex ci suñu xol ndax suñu sañoon kenn dootul toog ci mbedd bi di tàllal loxo bu ñu sañoon ñëppay liggéey loolu moo tax chaque jour nag dañuy leen di tegal benn handicapé boo xamante ne nii dinay am activité aussi tamit ñu wan ko ne ci la bokk télé bi seen moomeel la euh, loolu moo tax dafay daal di am solo moom nag euh, semaine bi yëpp gore la nekk di fa def tournée bu am solo ummi seen ñi ngi koy nuyu di koy jaajëfal ci liggéey bu am solo bi muy def ndax moom aussi jigéen ju am jom la macha allah waaw ummi jàmbaar la seen la sant nag waaw <laughs> macha allah sant seen ay guerrière lañ macha allah di ko ñaanal gudd fan ak wér euh, di wax ne xale yi dañu war a roy ci kii mama parce que mooy toog daal amatul comme macha allah xam nga kii handicapé la mais toogul toogul yalwaanut ñaanut ay bëgg-bëggam du ci xaar mm. kenn parce que fii ku la may benn yoon yab la a góorgóorlu la daf ko ci may da def mm-hmm. euh, te genre gi ñu jàppee ne que ni peut-être mooy loolu mun loolu mënuñu ko nga xam ne nit peut-être cëram mën na manqué mais lii manqué ci yow mu war a nekk handicap ci sa bopp la te moom macha allah bopp bi Euh, mi ngi noonu loolu am na solo man pour man sax handicap amul dëgg la parce que tey situation bi man ku ma fa man maay nekk handicapé bi parce que mënu ma li mun kan mooy handicapé wallaay mhm. situation bi nga ne mhm. boo fa amulee boo fa amee problème rek yooyu yaay handicapé dëgg la handicap amul wallaay dëgg la Mansour nga gis élément bu am solo bi nga xamante ni leen nii seetaan nañu ko mhm. euh, ba ñuy waxtaan ak ndaw ñi ñi nga xamante ni leen nii yàlla dogal na si ñoom peut-être manqué wuñu benn cër mais ñu jàpp ne que ne ñoom mënuñu tekk ci réew mi Euh, nga gis tey koo xamante ne ni am na ndogal bu ko yàlla teg ba mu juddoo ba tey moom la judduwaale mais terewul góorgóorlu na ci réew mi ba ñu ràññee ba dem vers moom di waxtaan ak moom ci ay activités yu am solo donc est-ce que après du mujjee contradictoire bu ñu nee ñoom mënuñu fi gis seen bopp mënuñu fi am liggéey mënuñu fi tekki. waaw man li ma gis ci émission bi nii neex na trop. Mm-hmm. mais dañ bëgg ñu xam ne handicapé bi. Mm-hmm. cest dire que ñun bu xool ne ñoom ay handicapé lañ. Mm-hmm.

war nañ ko mën def te ñun bu ñuy ñëw si ñoom aussi bu ñu xoolee bëtu handicapé dañ leen xëy bëtu doomu aadama la ñuy yëngu te li ñuy yëngu tamit yàlla na si mhm. nekk nag dafa am yoonam dëgg la adduna moo mel mhm. euh, xale yi ñoom ñi ngi génn mhm. mais man boo gisee tey ci xale yi bu nu wax tamit ñu bañ a génn dafa am lu ko waral bon li ko waral mooy tey ji man bi ma ñëwee Sénégal sincèrement parlé dama am lu ma metti am lu ma naqari tey su ma demee ba gis sama réew tey ji mu mujjee ci armeel ak ak prison daf may daf may métti trop parce que tey jii boo waxul nit ñaa ngi dee mhm. tey jii ñu ngi tëj nit ñi loolu réew moo xam ne bu fekkente ñu ngi koy demee il faut xale yi dañuy génn mhm. donc pression bi leen di téye ñuy <coughs> tey jii boo doy xool man parce que man j'aime toucher la réalité des chose nag Mhm. man noonu laa mel damay wàcc biir terrain bi di toucher booy di xool di dugg ci koñ ñi di xool damay dox di def lépp. Mhm. jug tataay di xool situation sociale bi. di xool tamit le bain. xam exactement lii xew. lii xew euh, te a leex. Euh, euh, Amadou dinañu gën a waxtaan ak yow parce que tey suñu gisee handicapé yi tey fii nii peut-être cëral nañu leen am na fu ñu leen teg ba tey ñuy def seen ay activité normale di def seen ay business ba mën mënal seen bopp mais yow mi am chance su génn dem ailleurs gis fa ñoom aussi ni ñi euh, cër bi ñu cëralee handicapé yi ni ñu leen joxee gëdd mais aussi tamit ni ñu leen di toppee ci seen ay activité yu ñuy def ñoom sax ñoo fa ëpp gëdd ni ñuy jàppee ne nekk ñu handicapé donc expérience boobu noonu nga dund tey boo amoon looy dolli ci élément bi lan lay doon macha allah loolu muy def moom liggéey bu nice la mm-hmm. xam nga man dama gëm ci àdduna chaque jour damay wax nit ñi su ma ko waxee nit ñi di ma ree ma leen ku ci nekk avant ngay ñëw ci àdduna dafa am purpose maanaam dafa am li nga xam ne damay damay damay faral di kaf ne da nga dafa am accord ak yàlla boo xam ne soo ñëwee fii danga nga ko war a continuer bien sûr donc euh, looloo tax nit ki su toogee pensaay bëgg dara du xam lan la mhm. mais day toog bëgg lu baax day toog jékki-jékki ne ay waay su ma newoon États-Unis su ma newoon fee mhm. do dama gëm ne ku ci nekk ci vie bi am na purpose euh, ki nga xam sànq moom laa koy wax ci wàllu livre bi ma ne ko peut-être sa objectif lu tax yàlla bind la mooy yow nga am expérience boobu nga ñëwaat mm-hmm. soo ñëwaatee bind livre bi peut-être mën a inspirer ay génération tout à fait you know so mm-hmm. peut-être yow mm-hmm. euh, damay faral di naan Donald Trump su ma ne ne Donald dafa dee dem ci yàlla yàlla mu ne yàlla defoon naa lépp yii nekkoon naa président def lii lépp après yàlla na ko waaye yow sama askan toppatoo woo leen léegi yàlla ne ko da ngay ñëwaat léegi soo ñëwaatee bi baax dama lay def genre médecin wala ngay jaay café wala ngay jaay dara su ko defee nga gën a service sama askan dama gis ne ku nekk ci àdduna dafa missionnaire la daal man noonu laa gis missionnaire lañu ci kaw suuf loolu dafa am solo macha allah euh, wax nga loo xamante di leen nii vraiment loolu moom aussi tamit jàngat buñ ci war a def bu yaatu la euh, waaye dañuy ànd ak ba tey waa régie ci élément euh, ñëwaat ci plateau bi gën a mën a yaatal waxtaan bi ñu ngi fii ci état major légion nord bu gendarmerie bu Saint-Louis ci biir section de recherche nag daa di fay fekk ay ndaw yu bari nag daa di toog nag jaaxle nag ñu ci bëri nag dekk ay candidats yoo xamante ne dañu waajaloon émigration irrégulière ñoom nag dañ leen arrêté woon ci tentative bi nga xamante ne moom la ñu doon def ngir mën a jël géej gi mën a wutali fi nga xamante ne mooy Europe ñu leen ci jàpp nag ñooy waa gendarmerie bu Saint-Louis entre Gandiol ak Guet ngir ñu mën a def voyage bi nag ñoom nag am na ay bidon ndox yoo xamante ne root nañ leen daa di indi tamit lu ci bëri ci ay biscuit ay yëf yoo xamante ne dañ koy lekk ci yoon bi ñoom nag ñu ngi toll ci 88 migrants irréguliers yoo xamante ne jot nañ leen arrêté bi gendarmerie egsee fekk leen foofu fi nga xamante ne foofu la ñu regroupé wu mu am juróom benn yoo xamante ne ñoom ñooy seeni convoyeurs yi nag ñoom ñu ngi opéré entre Gambie Kafountine buur ak Saint-Louis am na yeneen jumtuwaay yoo xamante ne tamit waa gendarmerie jàpp nañ leen lu mel ni gaal gi ak ñetti moteur yoo xamante ne tamit am nañ ko ak juróom benn fukk ci ay bidon yoo xamante ne dafa am ay essence ak benn GPS waaye ba léegi gendarmerie mu ngi def ay investigation ndax nee nañu am na benn gaal boo xamante ne tamit mu nga ca biir géej ga tamit ñu ngi koy wër bu baax a baax ngir mën ci teg loxo. ci kàddu commandement bu gendarmerie bu légion nord nag. moom nee na ñi nga xamante ne ñoom lañu joto arrêté nag dinañ leen jébbal yoon nag bu ñu paree ci seen enquête bi mu gisee ni lu jëm ci émigration irrégulière commencé na jóg nag commandement bu gendarmerie nag daa di am ay jumtuwaay yoo xamante ne teg na ko rawatina benn stratégie moom nag mbébétam mooy fexe ba lépp loo xamante ne xale yi sumb nañ ko mu daal di koy dàkkal loolu moo tax mu am ay opération yu bari yoo xamante ne ñu ngi koy tuddee opération de surveillance yoo xamante ne ñu ngi koy amee depuis Saint-Louis ba Casamance fépp foo xamante ne tamit yëg nañ fa ni ay xale dañuy bëgg a wutali géej ngir mën a demi ca Europe macha allah dañuy jaajëfal bu baax euh, Moussa Mané moom da ciy jàpp bu baax a baax a baax euh, chaque jour bu ñu soxlaa li nga xam ne moo di invité euh, en tout cas day contribuer bu baax ci émission bi loolu ñu ko ciy remercier kon gis nga élément bu am solo bi ñu def loolu aussi mooy wane ne que ne ñi ngi jël lépp lu ñu mën a jël dispositif yi nga xam ne wax nañ ko mën jël ngir dakkal lenn li mais aussi tamit ngir aartu xale yi parce que tamit comme ni ñu ko waxee loo xamante ni leen nii wax dëgg yàlla ñu bëri bu ñu ci duggee seen bakkan da ciy des mm. loolu mënuñu koy seetaan rek muy dem te loolu dafa doon lu am solo des fois da ngay wax ne est-ce que ñi ngi ciy taxaw taxawaay bu war te élément yu mel nii dafay fësal loolu noonu macha allah. dëgg ma maman même bu ñu leen mënul tere. Mhm. mais ñu yee leen. parce que ñun loolu mooy suñu rôle. Mhm. yee xale yi wax leen yan risque moo leen ciy fekk. Mhm. lan moo leen moo tax mémoire d'un clandestin bi ñu andi ko. bien sûr bu ko defee xale bu ko mënul lire tamit. bu dee mm-hmm. accessible lut ñu xam ne livre bi accessible na. xale yi jël ko xam lan mooy parcours Mansour wala lan mooy parcours Amadou. waaw te defe naa dina leen servir de leçon loolu laay wax à chaque fois. Mm-hmm. émission bi du pour ñëw toog rek wax. Mm-hmm. dañoo bëgg suñ toogee wax ni ñuy déglu. mu jëriñ leen bu dee lu ndaw sax. bu dee cible bi benn personne bu doon dem la. ñu disuyaade ko wala mu xam moo ko fay moo ñu fi toog te defe naa xale yi dinañ ñu déglu allah waajur yi tamit leen gën a sensibiliser parce que ñoom ci lañ bokk defe naa tey maman sa doom du la tàggu ne day jël gaal nga mhm. jaar si àll bi mhm. kenn du bàyyi sa doom di aventure wu parce que njëriñ loo fekkee te loo xam ne risque la sa xat mun na ci mun na dem defe naa kenn du ci encouragé nit nag pour téye kenn wala pour jàngal kenn wala pour jox kenn leçon mhm. handicapé bii rek leçon la lu mu métti métti ba pare ñooñu ñooy defar réew mi Sénégal bu ñëpp demee kan moo fi des dëgg la euh, ñan ñooy ñu suñu ñaari invité yëpp dañoo demoon mais dañoo ñëwaat euh, ñu ñëw ak Mansour ci mémoire de clandestin bi nga xam ne bind nga ko euh, mu nekk téere bu am solo boo xamante ni la nii yaa ngi ci wax ay wax yu am solo lan moo la motiver lan moo def déclic bu nga toog jàpp ne da nga war a bind téere boo xam ne dina sensibiliser mais aussi dina permetre képp koo xamante ni la nii tey sax xel mi ngi doon dem ci lenn lii nga génn ci parce que tamit du am njëriñ te comme ni ko code waxee njëriñ loo fekkee. waaw code li mu wax dëgg la. Mhm. aussi tamit euh, maa ngi kontaan ci waxam bi léegi. parce que mhm. ñun fi mu toll nii waajur ci lañ bokk. dëgg la aussi yee xale yi pour ñu bañ a dem. Mhm. moo waral ma bind livre bi. malgré tout dugg naa Europe ak fi ma jaar yëpp ba wàññeekuwaat ñëw génnee livre bi. donc dama gis man fi ma jaar. mu métti trop te li gën a métti mooy que ne du livre bi. mais maanaam moo koy génne ci sama biir di ko sotti ci livre bi loolu moo gën a métti parce que ça me rappelle des moments yoo xam ne mhm. xaw na métti trop trop moo ma koy bind tamit di ko di ko di di xool na est que man maa jaar fii ba ñëw toog mhm. lépp da ciy am bon xale yi moom il faut ñu waxtaan ak ñoom waxtaan boo xam ne day xaw a day xaw a sérieux tuuti mhm. bon premièrement damay ñëkk ci waajur yi bon waajur bi may ñëkk ci ñoom maanaam dafa am ñoo xam ne tey jii seen i doom moo xam seen rakk la seen mag la tey jii toog nañ lu yàgg gis ñu leen bon man ci li ma jot a jaar bu ma siwoon ñun ñu jéem leen na fàtte parce que man sama cas jaar naa ci gaal goo nga xam ne on était 33. te ñun ñun quatre personne ñoo ci génn kon vingt neuf dañoo dañoo des ci biir. 33 personnes quatre ñoo ci sauvé ci génn. d'accord donc boobu c'était au Maroc. Mhm. demoon naa benn moom moo xam ne dama wàccaat ba ñëw ba gaaw dem Niger pour jaar jaare Libye. d'accord léegi bon bi ñu ñëwee ba Niger. Mhm. bu ñëw Agadez Agadez Durku Durku Janet. mais après dañuy am benn yoon boo xam ne dañuy def la marche vers Libye mhm. donc dañuy nekk benn groupe boo xam ne aussi dañuy dem ba dañuy perte parce que duñu am fu repère bu ñu mën a xam ne fii mooy yoonu Libye mhm. donc parfois da ngay jaar ci yoon bi di gis ay cadavre yoo nga xam ne dañ leen ñi dañoo xiif wala dañoo mar mhm. wala dañoo perdu benn moo boo xam ne mënatuñoo dem léegi ñun li ñu may chance moom dañ dajeeg dañ dem ba Garambis dajeeg waa ñëw ci frontière wu Algérie bi moom ñun moom pare woon nañ sax pour pour yaakaar nañu dinañ da ngeen di dee si yoon bi. moom bu ñu jógee ci camp boobu ñoom ñoo ñu dimbale sax. Mhm. jox ñu lu ñu ko jaar di dox lépp voie terrestre lañ koy def. d'accord moom lañ la ñun ci la ñuy ñàkkee sunu bakkan ñun ñëpp te ci mhm. li ñuy ñàkkee sunu alal mooy bu ñëwee ba Bamako déjà. dafa am a yu fa nekk sama des rabatteurs. d'accord loolu bu ñëwee foofu dañuy def benn bus bu rafet bon leen di bind ci air Espagne donc sama genre ak mbokku pël yi ak séeréer si ñoo xam ne xamuñu lu bare. dëgg la bon dañ leen nax ne Espagne direct kon ñooñu jànguñu géographiquement que ne Espagne mënut a nekk direct parce que y a une mer à traverser. d'accord léegi nag dañuy lekk seen xaalis. Hmm. léegi encaissé trois cent mille dagale benn billet seize mille franc da gaaw boo ñëwee gaaw aussi tamit chauffeur bi day nekk complice boo waxee kaw muy la man billet gaaw lañ ma ne d'accord comprendre léegi yow fusion da ngay am ay envoi d' argent maanaam sa yaay yónnee la sa papa nga takk jaay sa ceenu or pour yow sa doom mi egg fekk sa doom eggul. Oh, malheureusement malheureusement léegi hmm. bu ñu ñëwee aussi y a une frontière malienne. mais lu yoon boobu noonu at laataa ngeen di egsi sax fi ñu leen di triandé ci ci bi ñaata jour ngeen. def non c'est-à-dire que boo mhm. comme supposons dans dans au cas man bi may jóge fii parce que mhm. boo dee xool maa ngi doon maa mais c' était pas suffisant pour ma gérer famille bi yëpp. parce que maa ngi aîné nekk aîné et puis am na sept enfants yu topp sama ginnaaw. d' accord bon papa était cloué. Mhm. bon dara un accident. Mhm. donc léegi charge bi xaw a diis trop. loolu mooy tax ñu bëri instantané di génn di dem. Mhm. waaw léegi ñun bu ñu ñëwee boo ñëwee Bamako moom gaa dañ lay arnaqué moom. facilement bu fekkee xamoo yoon bi. mais man j'ai aussi toujours ay la prudence que balaa may def dara man il faut ma laaj ñetti ñeenti nit ba pare balaa ma engagé benn affaire. mën a xam la différence. Mhm. kii li mu wax kii li mu kii li mu wax ma soo ko jàpp wax muy naaj. bi bi mu leen yóbboo ba fan la leen fay. car bi ñu mës a yóbbu. d'accord dañ ko boo ñëwee ñu ne bus baa ngi nii bind ci Espagne encaissé trois cent mille bu ngeen dee deux personnes trois personnes mu dagale billet gaaw ne la ci chaise bi boo defee sax ñu woon ne la kaay dugg ci bis bi bokkul ak bis bi mu la léegi dañ naan non bis bi daa am lu mu paan affaire yooyu xam nga ndax la yooyu dugal ci oto bi mais gaaw la lay wàcce gaaw tu te débrouille. d'accord léegi bu ñu jógee entre gaaw léegi pour dem Kaline. léegi dañuy dañuy nekk ci benn ghetto boo xam ne yaa yaa jara yaa yaa yaa yaa beaucoup de personnes yoo xam ne dañuy yore ay ghetto. Hmm. léegi ñoom ñoo dajale passagers yi noonu pour yóbbu leen a à Kaline. frontière malienne. parce que foofu dafa am benn arnaque ñu fa nekk. arnaque bi dañ naan la non est-ce que ñoom mën nañu yóbbu comme Algérie c'est mais yow aussi boo comprendre wul xamoo dañ naan nga naan mën na nekk bon tu verses des cent cinquante mille jusqu'à trois cent mille quatre cent mille finalement mën nga dem ba dépenser diggante Mali boobu rek yow un million too xam ne génn te boo doon jaar voie normale code euh, xaalis boobu mën nga ci dem normalement ñëwaat parce que peut-être à la base dañ naan la euh, cent euh, quatre cent mille ngay fay ci gaal gi mm. mais gaal gi après am na yeneen dépense yu bari yu lay xaar parce que wax nga ko arnaqueur yi ñu ngi ci coin bu nekk di leen fay xaar te vous êtes obligé ngeen dugg ci yooyu parce que mënoo leen a rester foofu aussi bien sûr noonu xool buñ buñ boo jógee foofu Mali boo xasee bu ñëw ko gaaw en ce moment c' était amul woon boobu kii woon c' la ferry da ngay dugg gaal mais boobu huit heures ngay léegi bu boo ñëwee foofu dañ lay seppi douanier dañ leen seppi dañuy trier quoi nationalité bu nekk comme malien ivoirien yooyu mhm. léegi nag bu dee yéen ñun sénégalais yi comme l'Afrique de l'Ouest dañuy obligé jox douanier wala policier yi vingt cinq pour ñu mën a jàll c' léegi yeneen francophonie parce que xaw na fer for naa ci weewu bay ñu ne dañuy xaw a privilégié euh, sénégalais est-ce que loolu dëgg la. dégg naa nationalité les maliens non mais bu dee ivoiriens ak séné ak ak ak bon peut-être guinéens mën nañ leen féewal parce que yàlla mandeng moo xam ne ñoom ñu ngi koy déggandoo. donc soo seen seen seen seen bambara bi rek bon parfois dañuy gis ne tu es un familier dañ lay bàyyi ci biir noonu. d'accord donc boo jàllee foofu tamit aussi bu ñu defee organiser voyage ba pare day am policiers yoo xam dañuy taxaw léegi. passager bu ñëw day fay cinq mille francs mu am droit pour mu dem sinon dañ koy retenir deuxièmement bu ñu demee ba ci biir léegi moom mbuusu bi la le toit bi nga xam ne moo la war i yóbbu kawil le transport nekk complice aussi avec les yi ñu nekk gaaw bu la wasee trois quatre kilomètres dañ leen seere dañuy obligé ñun dañuy fouiller partout luñ fekk ci yow dañ koy jël xaalis lépp luñ fekk ci yow dañ koy jël donc on est ñun suñu xaalis dañ koy denc fu ne xam nga am ñoom den koy denc partout partout même dans les corps intimes dans les mm. parties dañ ko fay denc mais teewul dañ fay dugal seen loxo pour xool oh. dàll yi dañuy dagg dàll yi xool partout léegi da ngay boo ñëwee ba Kaly dootoo yor dafa nekk benn benn benn benn village moo xam ne amul ndox amul courant amul dara mm-hmm. donc euh, Algérie ñooy root seen si terre ñoom du leen servir amul leen loo fa mën a liggéey donc dañuy obligé nekk léegi dox benn sept kilomètres no man's land mm-hmm. pour dem Bordeaux à partir de boobu nag foofu nge nekk bu fekkee ne am nga métier. Mhm. commencé de débrouiller et puis on dort dans les jardins yoo xam ne bon à ciel ouvert parfois. non lii doy na wax code lii <laughs> moom yéen galère ngeen souffrir ngeen donc ñu dañuy toog rek di koy waxtaanee mhm. mais mus man en fait xam ne ñoom euh, trajet bii nii yëpp lii la ñu fay subir balaa ñuy egg te ñi fay egg ñu tuuti la mhm. donc lii tamit bu fekkoon ne ñu bëri comme yow dinañu toog di wax ak ndaw ñi. ñu conscient ci li ñuy daj balaa ñuy egg foog naa du leen ko jaral. vraiment gën leen conscientiser rek. Ah. wax leen ne lii leen di xaar ci yoon bi. Mhm. parce que mooy li may faral di wax picc yi sax dañuy voyager. loolu dafa bokk ci nit. Mhm. tukki picc yi dañuy tukki. Mhm. Eh, tey dañuy migrer dem fee bu déwénee ñu dem fële. kon comme c'est picc yi ñoo tukki saakatuma ak nit mais comment voyager. comment voyager maman ci loolu la a wax. dem ñaan visa buñ la mayee baax na buñ jàngoo métier utoo métier utoo dara nga xëy rek ñu ne na ngay tukki parce que même yoon bii nii boo fiy jaar te amoo métier di nga sonn. Mhm. parce que ay at la ñuy def ci àll bi wala ay weer. Mhm. dëkk boo dem di nga fa manœuvrer di nga fa menuisier di nga maçon wu pour am xaalis parce que tey som bi nga yóbbu bu ñu sàccee yëpp. Mhm. triande la lépp looy dem looy def pour avancer boo amul métier fan ngay dem ma maman. yàlla minimum ba pare y a des yoo xam ne dañ ciy dugg mineurs yooyu loolu fu ñu jëm. duñ fay def. ak ñi ngay dégg couple yu ànd ak seen doom seen bébé ay mag lañ mais mineur jàngoo école jàngoo métier jàngoo dara nga ne na ngay jël gaal bi jaar fan dem fan mama mais souffrance boobu noonu nan la ko bébé mën a dundee au fait ñi nga xam ne dañuy ànd ak seen bébé ànd ak moom ne dañuy jaar voie terrestre wala ñu jaax ci géej gi pour dem loolu nit mënu ko dund xale mënu ko lool xale mag sax mënu ko dund au fait effectivement parce que ci loolu laay ñëw noonu mhm. parce que code li muy wax lu am solo la aussi damay mhm. d'accord ci ñàkk jàng bi mi nga xam ne mënoo am visa mënoo am lépp moo waral ñun on souhaité ñun ñuy dugg ci donc métier bi muy wax tamit am solo parce que waroo génn ak bopp neen loolu d'accord naa ci moom mhm. bon raison pour laquelle man ma ñëwee Mali trente deux de tomber sur un gars boo xam ne aussi ñoo bokkoon classe mhm. bon mu nekk dans les chantiers maçonnerie mais ma ñëwee boobu ñu ngi may fay trente cinq mille journée 1500 lañ may fay bu ñu ma daggee samay 8 pour cent ay 33000 laay dese ma bëgg cee lekk bëgg cee naan. donc man famille bi moo xam moo taxoon may jóg man tey mun su ma leen woon dimbali. au contraire ñoo lay dimbali. waaw non ñoom sax ba fàtte naa leen. Mm-hmm. instant tool ni parce que mm-hmm. mënatu maa dimbali kon mënu ma leen dimbali. Mm-hmm. dama obligé aussi tamit ma ne kon man métier chauffeur bi ma nekkoon nii du dox. léegi bàyyi ma jàng maçon ci chantier bi jàng fa coffrage jàng fa ferrailleur. et ça qui m'a aidé man tey ji bi ma demee Algérie moom mën a exercer am xaalis pour jàll Europe sans ma yaakaar ci benn envoi d'argent parce que aw ma famille bu ma dimbali ci loolu mais est-ce que yaa ngi yéen a ngi rendre compte que ne bi nga eggee ba foofu noonu motivation ak effort bi ngeen def foofu noonu pour bëgg egg. Mm. suñ ko defoon fii nii dañu fiy tekki loolu. c'est clair obsession bu ñëwee mënu ci dara. ah loolu aussi. obsession bu ñëwee bëgg a dem Europe nii boo ñëwee yaa booy mënoo dara. parce que ñun bu ñu demee ba nekk 33 personnes ñun kat bi ñëwee ci ghetto bi den expliqué na ñun sincèrement pareil gaal gi jig na ñoo ci des am na ñoom ñu ngi préparé pour demaat bu ñu leen wax dañ leen ñoom suñu yoon newu ci nañ ñun dañuy dem am na ñuy dem euh, kii expérience bi delluwaat. ki dem ba foofu carrément je jour de mooy jour de ñun jour yi seen mental toll na. foo xamante ne toll na foo xam na ñoom instant ñoom gis ñun sax ne dañuy dee dañuy gis ne dañuy dugg. kon dee bi nekkul loo xam ne instant toll ñoom dañ koy jël di ko nga koy wax ni ñu ciy tiit wala déedéet. Mhm. parce que dañuy dem benn affaire boo xam ne bul comprendre et ça m'est arrivé. Mhm. ça dafa mel ne am na loo ci bëgg a sànni. man maa ngi maa ngi comprendre journée bi at lépp at lépp at lépp mais lu ma bëgg xam mooy lan moo nekkoon sa motivation ba nga jug ne gisoo fii solution pour nga dem like lan mooy motivation bi because ah, xam nga nit nit ku nekk dafa am objectif mooy ku may lu may waxal président su jugee ne dafa bëgg nekk président peut-être am na leneen am na spine ñuy naan colonne vertébrale bi mm-hmm. ku ci nekk am na ko mais lan moo tax like ki know what I mean. Yo, I, question. en fait loolu nga expliqué sànq ne sa yaay dafa set doom ngay taaw. looloo tax sa papa tamit euh, feebar nekk si lal bi. il question bi muy laaj. Uh-huh. a yow li nga laaj c'est différent. d'accord man xam naa fi muy waxee question moom lan cest dire que moom dafa may laaj nii. waaw cest la bëgg a xamal que ne yàlla ku ñëw ci àdduna rek. am na lu mu la mooñaale am na am na lu mu la indil quoi. d'accord donc peut man xëy sama destin man écrivain laa woon mais j'avais pas le temps d'exister. kon ñun suñu manque d'existence instant toll ni moom moo tax ñuy dem pourtant lii bi ma koy bind aw mu niveau pour bind livre quatrième secondaire laa bàyyi mais teewul bi ma demee ba dugg Norvège damaa dem jàngiwaat pour mën a bind livre te pourtant maa ngi wax espagnol maa ngi wax anglais maa ngi wax norvégien tukki bi nga ko ci tukki bi laa ko jàngee kon ci destiné man instant ma nekk benn personne moo xam ne damay bind pour mën a informer les gens kon loolu moo sama rul ci àdduna donc kii question je l'ai compris beaucoup motivation la waxte de. waaw mooy motivation léegi li ñuy motiver pour ñu dugg. Mhm. li ñuy motiver mooy ñu dugg mooy toute personne boo xam ne da ngay bëgg suñu Sénégal boog maanaam dañ bëgg ñun africain dañ bëgg tekki mooy suñ première chose. Mhm. te tekki bi dañ ko teg fenn rek am xaalis am kër dimbali say waajur pour sentir que ne yow important dans la vie loolu mooy problème mu tekki ñun mhm. mais patience bi mooy suñu problème. tey jii man dama jàpp na lii nii xëy na yoon bi lii nii dama ko doon bind rek. mais tey jii réccu naa li taxul man ma dem fa def fa onze ans ci àll bi servir les tubaab te mun naa toog fii man jënd ko foofu te li ma am fële naa ko am fii. mais c'est l'ignorance benn question ma mm-hmm. mais Mansour ñibbisi. li ma ñibbisi mm-hmm. loolu naa la ko wax. Ah. mais pour affaire bébé yi ngeen doon wax noonu naa si ñëwaat tuuti ma waxal la mm-hmm. man demoon naa ba jëm benn jamono damaa découragé woon bi ma jaaree Libye bon jaar Algérie def tout. tenté naa ba sonn mais dama découragé woon. Mhm. ma demee ba war a dugaat c' est juste à l' de deux personnes xam ne dama ñëw ba Bamako pour léegi man ñibbi Sénégal laa naroon Mali ma ñaari gaal ñu ñoom ay capitaine lañ te nañ dawal gaal. bon comme xam naa Maroc affaire yooyu man laaj gars yi ñu ñoom soxla nañ ñaari capitaine ci laa jëlee ñaar ñoon yóbbu leen te pas pour dem mais su ma leen ñoom ku nekk dañ may fay mille cinq cent euros capitaine bu léegi su ma ñëwee ma jut sama lu ma liggéeyaat fii comme départ te moo nekkoon sama yéene pour ñëwaat mais bi ma demee benn capitaine dafa taxaw carrément ne moom mënul dawal gaal te en ce moment ñun ñu ngi nekkoon foofu cent cinquante et un personnes y avait soixante onze euh, ivoiriens et maliens ñu ñu raxandoo y avait cinquante quatre ghanéens et huit non cinquante quatre nigériens huit ghanéens ak deux sénégalais muy man ak mom capitaine bi ñoo fa nekkoon donc man Covid dafa ma ñaanoon pour ma nekk benn intermédiaire comme dégg naa bambara bi. Mhm. ak anglais beeg yooyu noonu pour ma nekk foofu mais daf may fay 500 euros. léegi bés bu gars que boobu j'avais prévu moom jël benn passeport étudiant pour mhm. jàll yoon boobu yëpp dañu am passeport ressemblance passeport sénégalais mënul dem. Mhm. donc dañuy jël passeport malien bu ñu nuroo rek. naari xamuñu sax ñoom kii ñuul na wala xay sax xamuñu ñu si yooyu ñoom. c'est-à-dire que tu peux défendre le passeport. et c'est bien da dem. léegi pour affaire da ngay gis ñoom benn famille da ngay gis famille fanaan ñun toog nañ man bi ma ñëwee gerte noonu mhm. fekk naa fo trois mois yoo trois mois yoo xam ne mhm. ñoom sanguwuñu ah ku lekk di jaaxal fooy sangoo dèjà léegi yow instant toll jigéen ñi léegi ñoom instant toll bu ñu nekk seen période de lu ñuy def ñu yor ay bébé yoo ñoom ñu ngi ci biir hmm. am ñoo xam ne dañ nekk dañ ëmb léegi ñu machine poids ñoom ñëpp dañuy traversé dem mais ñoom dañuy jël bébé yi parce que bébé ñoo leen di may kii bu ñu eggee ah.

man ñibbi si woon moo ma kii mais bi ñu demee c'était le 27 décembre. Mhm. bi ñu demee booy war a dugg les capitaine bi booy bi ne moom mënul dawal gaal parce que yaakaaroon na ne moom ak gars yi dañuy ànd moom beneen capitaine dañuy ànd. Mhm. pour mu mhm. aider ko. d'accord léegi moom xam na ne kee dem na yóbbu na Maliens yi. dem na 54 Nigériens ak Sénégalais moom moo leen yóbbu mais il pouvait pas munuma ah bon zoo ma doon wax quoi. donc comme Mansour bi munuma ah, grand man de munuma dawal affaire bi. ma mu non vraiment man du ma capitaine mais ma xam ne gaañ bi da am na benn peur wala panique bu nekk ci moom. Mhm. ma ne ko ah heureusement que maa ngi yow ñoo fi dégg euh, olof. Mhm. mais ñii ma gis ni fay 1500 euros 3 mois lekk ñu sanguñu def ñu dara nga bëgg a taxaw tey ji annuler voyage bi. Mhm. te day am benn link. link bi maanaam c'est-à-dire que bon gars yi connexion bu grave la nag. d'accord da ngay liggéey ak espagnol liggéey ak marocain yi liggéey ak africain yi. mais ñun boo dee xool tubaab ñun ñoo leen wan yoon bi ñuy bi ñuy saay saayee quoi. non business la foofu business la voilà. léegi après ñu tëmb ma ne ko le ma ne ganaar ma ne ko léegi comme kii waxuma ko dafa ragal quoi ma ne baal ma jéem gidee ko quoi léegi bi ma xëccee gaal gi taal moom mu dem ñëwaat tefes ma xëccee taal mu dem ñëwaat tefes ma xam ne kii mënu ko manipuler après ma yéeg na ko di ko wan d'accord léegi ma yéeg ko wan delloo choc bi comme jàng naa xam naa dawal tuuti mhm. delloo choc bi ak un de mécanique ma wan ko wan ko di ko wan léegi di ko wan busol bi c'est il se faisait quatre heures du matin il se faisait la mer ci géej gi donc du ma demee instant bi moo koy wan nag mhm. ci laa dem benn moment boo xam ne xam naa ne man pour fee jëm tebes mhm. man damay cramp parce que seddaay bi moom attanu ma ko yooyu mhm. te mu ngi taw donc noonu laa jëlee gaal gi moom ba dugg Espagne d'accord loolu moom la fa dugal mu dugal Espagne. macha allah euh, histoire bu am solo nga nga nga dund euh, loo xamante ni la nii macha allah j'espère que ne lépp def nga ko ci euh, téere bi. parce que dina permettre tey jii nii ñi nga xam ne mënuñu waxtaanee lépp ci plateau bi parce que dañu am temps. Mm. te il faut ñu jàll ak Amadou aussi waxtaan ak moom aussi expérience am aussi moom mu sensibiliser ndaw ñi bu baax a baax gis nga ne tey mën a kodd yëpp dañ leen bàyyi dañ la bàyyi nga wax. Mm. parce que dañu bëgg xam sa histoire pour que kii toog dañuy seetaan. bu fekkee ne moom am na benn xalaat bi mu changé ko par rapport ak li muy dégg ci yow euh, su ko defee dañuy ànd ak waa régie yi seetaani élément dellu siwaat ci plateau bi mën a dem ak Amadou. saa yu jàkkaarloo géej nag Mamadou xelam dem ci at yi nga xam ni nekkoon na ko mool fii nga xam ne mooy Guet Ndar bi mu juddoo waaye tamit géej gi da koy fàttali tukki bi mu amaloon jël gaal gi ngir mën a dem ci Espagne boobu ak léegi mu def fukki at ak juróom-ñaar. le 5 mai 2006 nañ fi départ woon organisation la woon boo xamante ni comme xew léegi xewul woon jamono yooyu phénomène la woon bu xewoon amuñu si woon conscience danger bi si nekk comme doom mool na yàlla dem Europe la rek ñun ñëpp nu jël risque dem mais biñ demee ba àgg xam nañ conséquences jamono jooju nag Mamadou ak ñi ma àndaloon jàppoon nañ ni Europe fa la dund neexee waaye bu ñu yeggee xaw nañ cee am tuuti mbetteel. mais nu ñuy imaginer fii ak ñu ni yi message yu ni gars lancé si jamono boobu bopp nga xam te ne internet meloon na comme tey ak réalité bu fa am wuute na quoi. tax boo demee yow impact boobu moo lay jëkk euh, problème boobu moo lay jëkk impacté ba nga xam ni ñaa imagination bi nga noonu ak réalité bi fii dara bokk si. ginnaaw bu mu tegee tànkam ci dëkk bu bees ak culture bu bees si la daal di xam ni foo mu xar tànk tubéyam si loolu nag amal na fa ay liggéey yu bëri te wute. ndax boo ñëwee ci dëkk boo xam bokk leen langage ima euh, culture yi bokkul réalité yi bokkul bon amul yenn capacité day xaw difficile pour nga adopté wu quoi mais tey bi foofu li may nekk nekk doomu mool masuma bay ma suma jaay ambulant. bi ma demee foofu réalité bi moo may obligé ma dugg si marché ambulant bi dugg si liggéeyu tool yi ak yeneen métiers yoo xam ne def maneebar daal fii ni ñuy ma maneebar euh, lom douze métiers ngay nekk loo gis nga xam yaakaar ni boo ko defee rek man maintenir sa situation économique di nga ko def ginnaaw bu mu amee juróom-ñetti at Espagne nag si la daal di am kayit daal di ñibbisi fii si Sénégal léegi nag camion frigorifique bii ngeen di gis mooy borom moo tax itam bi ma ñëwee li ma jëkkat créé mooy wut benn chambre auto auto auto frigorifique di yëpp di jënd si gaali fi di yóbbu Dakar di jaay ak Kaolack ak Touba comme mareyeur mais sama sama objectif nekkul mareyeur bi sama objectif mooy dem créer euh, société boo xamante ni dama bëgg dem ba man stock ay jën di ko jaay si biir dëkk bi doomu mool yi di ko jàpp ma koy stocké bu ñu ko soxlawaatee ma jaay lenk ko. jamono ji nag bëri na ay mool yu jóge Guet Ndar ngir dàq seen wërsëg ca Europe waaye nag suñuy dem duñu tàggoo. li nga xam ne mooy clandestin bi ñuy wax. ah amul benn mag mu si d'accord wala borom kër waaye nag loo xam ne dal na si kaw te ñi kaa def dañ koy nëbbu. bare na xale yoo dem seen ay yaay ay complice lañu xam nañu la xew yow borom kër gi yow yaay innocent boo duggee du la wax la xew dan laa xool nga génn dan laa xool nga dugg waaye yow yow yow affaire bi réer na ndax amul benn borom kër koo xam ne day yëg ni sa doom ma ngaa dem nga ànd sax moom. benn xalaat masul xalaat ni mool dana sax jël avion. di dem bitim réew ba di jël gaal di dem bitim réew mbir mi foog ngeen jàngat kala. centre de pêche bii nekk Guet Ndar nag activité bi dafa sooxe jamonoy nawet nag gaal yu bëri duñ dem géej mooy waral jën kenn du ko gis te li ni mel mën naa wéy bu ci mois de novembre. te ku ne xam na ne dëkk bii dëkku liggéey la noor nga daan liggéey bu nawetee doo gis lu ma fukki nit mu jaay doo ko gis waaye léegi noor ku ah, ku amul dundu noor nan nga amee dundu nawet mënoo am dundu nawet lii moo waral gis nga tey tefes gi. tefes goo daan wàññi ay junne junne junne junne nit tey mënoo fi wàññi téeméeri nit lii lu metti la ku ko xool xam ne lu metti la ku ko nangu xam ne lu metti la ku ko nanguwul nag xam ne lu metti la. jafe-jafe yooyu nag moo tax bëri na ay ndaw yoo xam ni as tu bi ñu desoon ci koppar moom lañuy ñuy jël gaal gi ngir mën a dem Europe. moo toog nga janoog sa yaay janoog sa papa janoog sa jabar te amoo benn rakk amoo ñaari rakk yéen ñëpp ngeen goyam si benn kër doole matewul ku nekk ak kër tey ngeen goyam si benn kër war añ war réer war ndékki daan xëy di naroo sa ñeenti gune wala juróomi junne ngaa dim ba naanatuloo naroo benn bis bi ñaari junne kon metti na. waa Guet Ndar nag jàpp nañ ne napp bi bis bi ñu ko soqalee dina tax xale yi bañ a xalaatati jël gaal gi ngir dem Europe. jaajëfal bu baax Amadou Wade ci élément bu am solo boobu dafa demoon ba diwaanu Guet Ndar euh, dañuy waxtaanee causes yi waxtaanee conséquence yi parce que lépp loo fi gis aussi am na lu ko causé te dafay baax aussi ñu xam ne njaboot gi yenn saa yi liy waral ñu sëngeem bay nangu seen njaboot euh, di dem ci géej gi ba seen bakkan dafay des dafa am yu métti yoo xam ne ñi ngi koy dundu euh, te ci biir émission bi di jégg ak këram faaw ñu koy waxtaanee ndax émission askan bi la lépp luy soxal askan bi rek loolu moo ñu ñor moo tax euh, Amadou yow it ñu dalal la fii nga nekk koo xamante ne tukki woon nga euh, dellu si waat mais nga am parcours bu riche boo xam ne bëgg naa nga partagé ko ak téléspectateurs yi. jërëjëf um, so man maa ngi juddoo fii Pikine um, sama papa moom dëkk ba la nekkoon daal di ñëw Dakar daal di topp newoon euh, mécanicien après dem armée nekk gendarme après am société boppam. so sama yaay moom dafa choose nekk immigré. dafa choose parce que moom famille am situation am dafa difficile woon papaam dafa gaañu woon moom mu yoroon famille. donc mu doon def commerce Gambie fii après mujj gi ci la dem man maa ngi dem Amérique ba ma amee 13 ans ma amee 13 ans euh, dem foofu at sama yaay après 14 ans ci la commencé dëkk at sama bopp sama yaay dafa mujjoon ñëw fii euh, léegi. seize ans ci la commencé am problème immigration problème immigration ñoom ci boppam ñu ne may essayer rapatrier léegi dix-huit ans ci laa def concours robotique mhm. euh, ba ma ko defee New York Times mhm. bu journal bokk journal bi nga xam ne moo gën a mag États-Unis daal di koy bind mhm. mu ko bindee mu daal di nekk front page maanaam première page bi ci la congrès Amérique daal di présenté euh, loi maanaam Hillary Clinton ak Bush ak euh, membre congrès daal di présenter loi ci loi boobu laa mujjee am sama citizenship pour mën a toog. d'accord léegi ci noonu ci la Hollywood ñëw ne dafay def film ci sama story ci sama film ci sama vie. Mhm. léegi ci noonu laa duggee milieu Hollywood mu duggee milieu Hollywood euh, joué film bu ñu wax Twilight film bi nga xam ne xale yi moom lañ gën a ràññee ci wàllu film vampire. Mhm. ñu jaay ci macha allah lu lu bëri ci dollar. léegi ñu daal di ci noonu ci laa ne aussi ci laa aussi dugg ci wàllu. Euh, activisme immigration parce que dama gisoon na États-Unis il fallait que yenn droit yi ñu changé ko pour gën a jàppale immigré yi surtout étudiants yi ñi nga xam ne ñoo fay nekk mais aussi euh, ma xool sama expérience ci at parce que maa ngi doon produire affaire yooyu ma ne foog mu ñëwaat Sénégal aussi because euh, amul sens ma am expérience bi ba pare toog foofu te lenn dafa xew mooy LeBron James da ngeen xamee ko ci basket dafa dafa euh, move LA après bu mu ba mu move LA mhm. tubaab bi daal di bind ci ci ci euh, garage am mhm. nigger mhm. maanaam nègre mais waxee bu bon la après ma ne sama xel kon kii def na lépp ci àdduna te mi ngi tàpp ba géemam te ba léegi ñii bëgguñu ko accepté ko caan ci loolu daf ma daf ma gën a comprendre ma ne ah ok amul problème naa dem fi nga xam ne man lu ma def dinañ ko apprécier mhm. donc euh, aussi parcours boobu président Wade invité woon na ma Sénégal mhm. euh, aussi ci laa amee euh, lu ñuy naan certificate of congressional recognition mu di certificat bi nga xam ne moo gën a mag ci lu ñu la mën a jox ci Amérique mhm. mais Sénégal man dama ñëw pour def li nga xam ne mooy waxtaanal sunu ndaw yi you xam naa ne aussi dëkk bi metti na parce que nit mënoo ko ne rek saa bul dem te joxoo ko dañu naan ki da nga laa mhm. te joxoo ko exactement lan mooy solution man solution dama koy xool ci sama papa bi nga xam ne dafa toog Sénégal moom am na dix ans ñaari yoon Amérique mu ne dewuma ma ngi mhm. understand so mu daal di toog euh, nekk mécanicien euh, affaire yi doy waar mu daal di continuer di def ndànk ndànk ndànk ba mën a yàlla may ko lu mu lu mu lu mu lu mu am so uh, I don't know loolu laa ci loolu laa ci mën sama parcours sama sama parcours um, mais am na aussi yenn situation yoo xam ne yu metti yi man wax dëgg fa yàlla mënuma cee wax parce que dunduma ko bien sûr you know parce que yow euh, seen différent différent bi la loolu sànq ma laaj ko mhm. motivé itam you know parce que lu la lu triste la lu ma gis rek mooy su ma ci doon yokk dara mooy peut-être éducation mhm. éducation lu ma ciy jàng ci ñi ñëpp lu ñuy wax mhm. lenn lu ma ciy ràññee tuuti rek mhm. mooy am na tuuti éducation boo xam ne peut-être mën nañ ko gën a am euh, you know mais aussi nit ñi suñu jàngee peut-être même si éducation boobu suñu paree aussi ñu am liggéey you know I don't know mais foofu li ñuy ñëwaat rek mooy Mansour nee na moom amoon na liggéey te bëri na si ñoo xam ne euh, ñi ngi jël géej gi amoon nañ fi liggéey am nañu seen activité mais seulement dafa wax lu am solo mooy loolu doyu leen pour euh, charge yi tegu seen kaw euh, te code benn affaire moo am àddina bi est-ce que ku nekk li ngay am doy na la nu ñu war dundee la ñu war a xoolaat ku nekk aussi tamit nga doyloo li nga am pour mën ci dund mais ku nekk am nga soxla bu ëpp li ngay am par mois mhm. donc tey euh, bu ñu xoolee bëri na ñoo xam ne amuñu liggéey c'est vrai mais bëri na ñoo xam ne dañ fiy bàyyi seen liggéey am seen atelier moo xam menuiserie lañ doon def wala leneen mais ñu bàyyi ko fii parce que jàpp nañ ne charge yi nekk seen kaw ñoom li ñu fay am doyu leen mhm. donc éducation bi muy wax lu am solo la ndax foofu la ñu war a delluwaat mhm. ak xale yi ba nga xam ne li ñu am da leen di doy ñu xam ne wërsëg tamit euh, day ñëw tempo tempo. dëgg la maman ak ñu yaakaar ne ku dem rek na ngay tekki. parce que sànq dama posé. na ma posé Mansour li tax nga ñibbisi mu ne ma tontoogul. Mm-hmm. loolu am na ci kii. Mm-hmm. am na ci am na ci plein droit. Mm-hmm. mais xëy rek tey tey tey ne na ngay tekki tey tey tey maman ñun ñii ñëpp ku nekk am nga jaar jaar. ku nekk am na foo jaar balaa ngay egsi fii. ku wax sa histoire rek nga ne kii moo gën a métti le kon àdduna il faut mu am ay période yu neex ak période yu naqari mooy li ma la wax chaque jour ñoom ñaar li tax ñu invité leen dañoo am ñaari jaar-jaar yu différent kii peut-être avion la jaar dem ñëwaat na kii bato kii la jaar suuf la jaar dem muy ñaari yoon yoo xam ne yëpp existé nañ li may wax xale yi kenn mënu leen teree dem mais maman mooy li may waxaat nan la ñuy parce que tukki dafa dafa man mii su may tukki damay kontaan. dëgg la non baax. Mm-hmm. macha allah maa koy ñaanal ñëpp bëgg mm-hmm. naa ñëpp découvrir ko. Mm-hmm. parce que ñun ñii li ñu taxul doyalut sànq maa ngi koy wax Amadou. États-Unis tey mooy sama rêve bëgg naa dem découvrir ko. te li may tukki yëpp te doyalu ma. macha allah kon ñëpp a bëgg a tukki. waaw mais xale yi mooy nañu ut métier. ak xëy tey tey tey tey ne tey il faut ma nekk milliardaire tey est ce que boo demee di nga fa am alal. dëgg la est ce que du fii yow nga war a tekkee am na. sa papa mécanicien la di la tekkee. ku ci nga war a jaar fan nga a tekkee mm-hmm. Mm-hmm. boo demee est que baax na ci yow que di fa tekkee est que di egg la wax parce parce que ñoom <laughs> nee nañ sax téyewu leen nga sànq Mansour loolu la wax nee na gis bato bu dem trois ñibbisi ñu la leen ah ñeneen ñi dee na ñu ne ñoom gisuñ dee dem lañ dem mm-hmm. mais boo demee loo fay fekk lan que ah, parce que aussi su fekkee nit ki dafa ne dee bi moo ma gën a dem su fekkee sama bés dee jot na ma dee mais kooku I don't know man il faut mu mën a xam de base xam naa ne de base pauvreté mi ngi ci right mhm. pour parce que bëgg jox sa famille amoo mais de base lan la you know what I'm saying loolu la kese la mais xam nga parfois aussi mooy li moo sànq rek bon kodu boo gisee sànq may la du ma ci tontu parce que dama doon développé moo tax may la ñibbisi li tax ma ñibbisi man dinaa la ko wax mhm. kii da ko wax sànq xëy na kii la li li ma doon xaar kii wax moo tax sax waxuma ci dara. parce que li mu wax James. kon man foofu bi ma fay nekk man maa ngi am salaire quatre millions yoo xam ne par interprète te pourtant prison laa jóge ñëw am salaire boobu. prison te ñoom dañu bëggoon dellu si mais j'ai refusé ma xeex ak ñoom ba gagné seen combat mais au fur au fur et à mesure may dem bon à chaque fois su ma toogee ma ne leen je suis un norvégien dañ naa doon norvégien je suis un citoyen norvégien. ci laa gedde ma delloo leen seen lépp ne leen comme man yéen considéré wu leen ma dama nekk fii yéen pour ngeen ma exploité di leen sama xaalis léegi nag man li ma dese man ci sama temps damay xale damay dem sama Sénégal te pourtant j'ai fait des yoo xam ne n'importe comment tey ma kalandoo bu subaa ma dem ci arrêt yi kook see noo naa nga ma ko daggam mais man moo ma gënal nga may humilier est-ce que yàq euh, yàq Amadou bokk ngeen fenn parce que moom aussi nee na foofu euh, retrouvé wul boppam gisul ne que ne jox nañ ko cër ak gëdd euh, foofu yéen a fa bokk ndax loolu moo tax ngeen dellu moo tax ma ne code sànq dinaa ko moo wax ci tax ma war a tontu code ci loolu mais xamoo woon ne Mansour Mamadou dina wax loolu xaw moon dina wax mais bi du du hasard du ah, Amadou waaw lu may wax ci aussi loolu mooy mhm. xam nga man ci man dama gis ne mhm. dem naa am naa comme certificat bi nga xam ne moom moo gën a mag Amérique. def naa film bi nga xam ne mun film nit mënatuma war waxu film ba ba mu kii ma. donc mhm. lu ma dama ne su may defaat dara. Mhm. loo xam ne day fës. na ma yàlla may mu jóge Sénégal. d'accord ko président di jóge Sénégal ñëw Amérique pour recevoir ma dama bëgg ñoom ñu seen bopp ñu ñëw fii. d'accord mhm. because ci noonu yàlla may na ma ba mu découvrir li nga xam ne day faj corona. loolu def naa ko deux mille vingt et hmm. ma def ko enregistré ko OAPI peut-être fësul parce que suñu système moo ñu moo ma mayul fu ma mënee wane loo xam ne lii exactement lii la. mais day faj corona ci médicament. wala day faj corona ci médicament. xam nga wàllu corona su duggee yaa ngi soo fàttalikoo tuuti su duggee day day nekk sa kii pour 14 days 14 jours après doog a wàcc. d'accord mais aussi dafa am ay ay ay sel yi nga xam ne si corona comme genre ñi ñi la war sa ma comme ni ma waxee sa maam <laughs> ñoo ñi nga xam ne ñoo war a défendre su su su su la dara attaqué. d'accord so globally. Mm-hmm. right so ñooñu corona daf leen di attaqué. léegi su leen duggee penn saa daf leen di mhm. léegi tubaab bi dafa jug ne léegi dafa ci médicament ñaari la la mën a jox mhm. mu li ñuy wax mRNA mhm. maanaam message bi nga xam ne dañ koy comme genre message la dañ la koy piquer léegi su duggee eh, soo gisee lii rek rey ko yaa ngi understand ak lañu ak ci DNA léegi man dama trouvé li nga xam ne ci loolu lépp avant day recouvrir day recouvrir kii bi globule blanc bi. globule bi nga protéger ko daal koy mm-hmm. um, so ci ci loolu laa doon gëstu. te loolu dafa bokk ci sama métier. Mm-hmm. ci ci donc plusieurs casquettes nga yor parce que jóge nga ci immigration dem. ci robotique la la <laughs> scientist la njëkk njëkk a njëkk ci ñama ma président Wade xamee. ci ci la ma gouvernement xamee. ak ci la Hillary Clinton. so maa ngi ciy profité waale. di mhm. ñaan euh, ministère de la santé. Mhm. pour su ko defee ñu toog waxtaan ci nan lañ gën a mën fësalee loolu. incha allah pour nit ñi xam. d' accord doomu moo ko. d' accord xam naa loolu di nga ci am ay retour incha allah su ko defee comme ni nga ko waxee réalisation yi nga def États-Unis nga mën ko def Sénégal parce que comme tu as dit amatoo looy prouver foofu. mais fii par contre bëgg nga ay euh, réalisation yu am solo yoo fi amal donc ñu ngi xaar. ok léegi ki ñuy nuyu rek mooy tey dañuy dem ba Arabie Saoudite euh, ko dafa mel ni sax yow loolu nga sentir moo tax nga solo nii nga solo <laughs> macha allah en tout cas suñuy téléspectateurs ñi ngi partout ci àddina bi mm-hmm. euh, tey dañu jot message bu neex buy wane ne que ne Habib Gaye ak madame euh, ñoom macha allah dañuy topp bu baax a baax a baax ñu nekk président ressortissant sénégalais yi nekk Arabie Saoudite bëgg loolu émission bi di koy topp ñu ngi koy nuyu Habib ak soxnaam bu baax a baax su waxtu bi ñu jagleeloon jeex na damay bàyyi suñu invité yi ñu tàggatoo après ñun aussi ñu tàggatoo ak téléspectateurs yi jox leen dig daje dinañ leen fi dalalaat ci lu gën a yaatu comme ça mu gën a yaatu ci waxtaan bi ma bàyyi la Amadou nga tàggatoo. jërëjëf maa ngi kontaan ci invitation bi. di leen di leen euh, bokk na ci mu ñëw Sénégal pour ibbi école acting comme ci wàllu acteur. Mm-hmm. donc aussi maa ngi profité aussi di lancé appel ministère de la culture pour ñu gisee ñu waxtaan damay profité ci because sometimes ñun suñu ñëwee yenn problème yooyu laa ñuy am man ci personnellement donc dama ciy profité euh, su ko defee ñu gën a mën a avancer loo liggéey bi nga xam ne maa ngi koy def mais rafetlu naa seen jotaay lu mu ci gën a rafetlu aussi mooy waxtaan wax honnêtement bi mm-hmm. you know so jërëjëf merci beaucoup merci ñun ñoo lay jaajëfal bu baax a baax Mansour yow aussi remercier nañ la waaw man te maa ngi remercier Kodou ak euh, la présenter c'est JK. merci noo def. <laughs> merci beaucoup léegi man li ma bëgg lancer rek mooy mhm. que maanaam suñu moodu moodu yi nekk foofu noonu. Mhm. bon bëri nañ fa trop bëgg nañ ñibbi si mais amuñu ñu ñëwee. Mhm. c'est pas que ni amuñu passe wala nangam ak nangam. mais il faut que sénégalais yi nekk fi jéem leen comprendre que dañoo demoon wuti amuñu. mais bu ñëwee nañ leen bañ a xas. parce que loolu moo leen fa téye ñuy fanaan ci yi di lekk ci poubelle yi di def naka su dul noonu. te loolu gënalu leen. comprendre am na ñoo xam ne dem nekk vieil âge sax mhm. bi mënatu leen encadré ci dara mais dañuy nekk des sans abri mhm. léegi ñun ñi xam ne ñoo nekk fii dañ leen muñul te xam ne amuñu buñ ñëwee mhm. dañ sang ba mu set toog seen expérience ñun a bañ a dem. bien sûr mais nee leen accepté wul nañu am fullaay ñëw ndax dañoo demoon rek daan doole léegi yàlla moo yor wërsëg bu si réew mi ndax ci la ñu bokk. daal dëgg allah <laughs> ma indil tey macha allah seen waxtaan bi yaatu na lool mais am na njëriñ lu bëri bëri tey nag damay dem ba diwaanu Touba euh, remercier waaye aussi tamit nuyu sama tata Tanda Yacine Diop ah sama rakku yaay jooju ah, rakku tonton daam moom nga xam ne dafa baax gën meilleur maa ngi koy eh, nuyu bu baax ak diwaanu Touba gépp ña fa nekk eh, di leen gën a siyaar ci safar gi am mbégte lool nag di ñaan yoonu Serigne Touba bi yàlla yokk ko rek ba ñu yokk xam naa daañu ci dikk ak yéen ci safar gi incha allah ak màggal gi eh, semaine prochaine ak jéeg a këram waxtaanee ko gis nga ba safar gi dooree ba tey yi may def wax dëgg yàlla ne nañ ma nay murite déedéet bii di ñëw dañuy safar sax bii <laughs> di ñëw incha allah di encouragé <laughs> mhm. di ko koy conseillé bind na livre. mais mhm. suba mën na tourner film. bien ñooñu ngay wax ne mënuñu ñëw. Mhm. mën nañ ñëw. mam am nga mission bu mag Mansour mooy li nga wax peut-être sa mission moo doon nga jaar ci suuf. Mhm. pour mën a xam ñoom li ñuy dund pour mën leen représenter parce que ñun ñëpp ay yaay lañ ay sœur lañ. lii daf ñuy dafa daw suñu yaram peut-être duñ fi toog di jooy. pour wane ne métti nañu. mais au fond de xam nañ ñun lu ñuy ressentir. parce que ku mu wul de près touché na de loin am nga cousin wala voisin mhm. wala mboq mboq boo xam ne lii daal na ko kon bu kenn toog ne man bokk ma ci mhm. am naa possibilité jël avion mhm. wala euh, sama doom am na possibilité tukki c'est l'affaire de tout le monde ku nekk am nga ci part de responsabilité Amadou na ma lay encouragé yow tamit di la wax ne yéen ñëpp vous avez di boulot vous avez du pain sur la planche am ngeen liggéey boo leen war a def motiver xale yi wax leen nan la ñuy jaar pour tukki. Mhm. parce que tukki kenn mënu ko tere. mooy li ma la picc bi sax comme ça ko tere tukki sàqantuma ak nit. Mhm. mais comment voyager yéen ñaar ñu wax ne bon chemin. Mhm. am ngeen liggéey bu mag boo leen won liggéey si mémoire d'un clandestin. maman na ma tukki woon nag. ne fay na ci yow man xawoon naa dig waxtaan naa soo ñu pare il faut ma doosi la maman di gërëm waa Mbour ndeysaan. dégg loolu te tukki bu rëy bi yëpp nag mooy Mbour la demoon. dégg nga xam nga wa RTS dañ ñu yàq dem nañ waxtaan ñu ñu toppatoo ñu. dal benn famille ba ndeysaan macha allah. RTS mhm. famille lañ. parce que dañ dem waa kër Alsaan Ba. Mhm. dañ fa am benn kër ñu toppatoo ñu. famille Ba. Mhm. ba Baylo ak ñaari soxnaam yi. dëgg la Xadijatu Ba ak Dégem Diop. macha allah jox ñu lekk toppatoo ñu. macha allah moo tax ñëwee nga il faut ñu toog fii sant leen parce que tamit loolu lañ leen amal. dëgg la di nuyu suñu famille ñii seetaan di gërëm waa Sénégal di. encouragé waat suñuy ñaari invité macha allah bi yoon su may dem ma lay yóbbu loolu dina ma neex nag su ko defee bu ma demee mu mën a noppaliku def yi nga def boo tiitaroo ma tiitaroo <laughs> jaajëfal naa bu baax madame Wele ci accessoire yu am solo yi sama siste d'amour boobu noonu démb moom moo takkal accessoire yi ak tey euh, ma di koy remercier ngeen mën ko jot ci cent 77 378 14 29 bu ngeen demee Scature Bam da ngeen ko fay fekk watu boulangerie Marimar noonu naay remercier aussi Awa euh, Awa euh, Kanouté madame Cissé tey moom moo jaax ci maquillage beeg tagal bi euh, jaax ci code aussi ñu koy nuy bu baax a baax di koy jaajëfal <laughs> mais aussi remercier ki nga xam ne moom moo di coro ci réalisation bi ah aadalaay euh, madame Sonko aada mu seetlu mi mi ngi noonu euh, nuyu nañ la nuyu monsieur Sonko bu baax a baax a baax di koy wax ne bég nañu kontaan nañu ci moom remercier suñu caméraman yi suñu preneur de son yi remercier groupe RTS yëpp parce que code ni mu ko waxee dëgg la famille la ñu ñun ñëppay soutenir ku ci nekk morom ca la muy def te loolu dañ ci kontaan bu baax Mariama euh, suñu journaliste bu mag bi euh, cofeel gi maa ngi koy sentir merci beaucoup ma sister d'amour Sarah merci euh, ci message yeeg li ngeen di wax yëpp yéen kenn gënu leen yéen a baax donc jox nañ leen dig daje suba ak jàmm incha allah ñu ñëwaat ci numéro beneen numéro wu jeeg ak këram d'ici là prenez soin de vous ngeen nekk si jàmm merci beaucoup